asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax di leen ni saa yu jàkkaarloo yéen mbégte ak contentement la ñuy ànd yéen mi gis ngeen chaque jour ak fu ñuy fël tey dañoo seet suñu benn euh, soppe suñu benn euh, kóllëre ngeen xam ko bu baax muy def yoo xam ne defe naa ne si lu muy yëngu ñëpp ko xam ko jox cër si lu muy def muy maître tey moom lañ seet si ñu waxtaana moom ci wàllum lu bari dama koy nuyu rek jox ko kàddu bi di ko ziar bu baax ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm yéen ak seen télé seen téléspectateur yëpp. dañoo bëggoon nga résumé ñu tuuti kan mooy Clédor. man de li ma xamoon moom moo di saabu bu mënul fóot boppam. Mhm. ab avocat laa daal boo xam ne maa ngi jéem euh, def sama liggéey ci li nga xam ne yàlla war na ko bëgg war na ko santaane. Mhm. te di sóoraale yàlla bañ ma cee jéppi. te it di ñaan képp koo xam ne que yàlla daf la man ba nga ñëw ci man. sa yaakaar bañ a tas fekkee ne que sa yaakaar dafa nar a tas bul agsi wala boo agsi bu ñu jubu loolu am na solo bu baax euh, ma bëggoon xam tuuti lan moo tax nga choisir métier avocat défendre nit ñi lan moo tax nga choisir loolu ak nu mu méttee ak risque bu ci nekk euh, li tax ma choisir métier avocat euh, li ci gën a am solo moom moo di surtout branche bi ma choisir man ingénieur la waroon nekk ingénieur du son moom laa doon jàng moom laa bëggoon sama xol yàlla mayoon ma lépp lu ma laal mun ko transformer en son ci samay loxo léegi nag euh, yàlla dogal maanaam école ba ma nekkoon ay grève di am amul ñu leen jiite nit ñi daal yëkkati ma man maa doon animé mm-hmm. euh, foofu ci foyer bi mu di lycée Charles de jiital ma ba ma yéegee daal la sama vie changé ñu dàq ma ci école yëpp Euh, ma def candidature libre première laa am sama bac. ndax mhm. mënu ma woon dugg ci benn école. ba ma demee wara a bëgg a nekk ay journaliste pour mën di continuer di wax ci mbiru askan wi luy jàppale askan wi ak li xam nekk daal dëgg bu ñu nëbb am fit ak sañ-sañu feeñal ko yàlla dogal ba ma defee concours bi jàlluma ma laajte fan laay war a mën a am sañ-sañu. Euh, fu ñuy wax dëgg ma mën faa taxaw wax dëgg mhm. alors ci lañ ma wax droit boobu mosuma gis koo xam ne que sol na robe xamuma ko noonu laa demee droit ba ma demee droit it euh, découvrir ne que am na ñi nga xam ne que dañ leen di néewal doole ñu ngi ci kaso yi ñuy avocat yu leen di jàppale te it daal euh, dinañ am ñu ñuy tooñ te duñu am kenn ku leen taxaw ko leen défendre waaw looloo tax it ci li may jàng ma fexe xarañal ko pour gën a mën a nàcc ci li nga xam ne que ak yelleefu doomu aadama looloo tax ma nekk avocat pénaliste man maa ko tànn wante yeneen xam-xam xeetu droit yëpp jàng ko. ok euh, avocat nan la war a mel si jikko wala si nan la war a mel nga yaakaar. bon ci li ma yaakaar avocat mook journaliste comme yow ak ouvrier bi ak balekatu mbent mi. ñun ñëpp dañu war a xam ne que yàlla moo ñu sàkk. Mhm. yàlla xam ne it li ñu nekk moom moo ko dogal moom moo ko sopp te li nga nekk nga bañ koo xeeb te xam ne que yàlla moom moo def choix bi. Mhm. nga war cee mën a dëggu euh, war cee mën a te it jiital doomu aadama lépp looy def seetal na doomu aadama nga joteel ak métier boo munti nekk loolu bu fekkee ne def nga ko mu di àqam mu di yelleefam mu di it eh, ay coonoom yi muy war a eh, dajeeg yëpp maanaam dañ ci bàyyi xel donc référence bi suñu borom bi la. Mm-hmm. kon boog booy def métier avocat eh, loolu la nga war a te xam ne yow boo solee robe rek taxaw yàlla defal na la loo xam ne jox na la cër boo xam ne que joxu ko ñu bari kon book loolu rek jar na foo toll di ko sàbbal nga doyloo ko maandu ko maandu ci te it gën foo mun ci toll. te xam ne doo dara boo jàppee ne doo dara rek sa liggéey war na mën a set. dëgg loolu am na solo bu baax mais dañoo bëggoon a laaj la benn affaire boo xam ne yow nga nekk euh, avocat boo xam ne kenn dootu la présenté say parents est-ce que nangu woon na nga sol bubb boobu est-ce que métti woon na say jamono jàng bi ak nekk avocat ba tey nga doon li nga doon. Euh, man sama papa dafa teel a gaañu ma nekk taaw. uuf lu mot ñeenti famille yoo xam ne que man maa nekk seen responsable suñu yaay yi jiital ma ma doon gone ñu ne ma yoo yaay taaw yoo yaay bàyyi yoo yaay lépp maanaam mu doon lu diis loo xam ne dama ko yem mu nangu ko it mu doon sama yaay ñi duloon sax sama yaay seen wujju lañu ñoom ñëpp ñu jox ma cër boobu mm-hmm. euh, yàlla dogal ma nag dogal nag ba ma xamee ne que fa ma jaar ba yàlla orienté ma ma dem droit kon man dama jàpp nekk yàlla moo ma ko tànnal. li ma bëgg laa nekk li ma bëggoon laa nekk mu di nekk ingénieur du son li ma yàlla tànnal loolu laa mujj nekk. ma gis ne que it la yàlla tànn moo gën ci man ndax lu ne te damay sant suñu borom bi mun naa ne que man maa gën a riche ci àddina bi lu tax maa gën a riche ci àddina bi du ci alal duma yegg ci biir wante xam naa man li ma yàlla defal ma ko ciy sant. te it doyuloo ko léegi nag ba nga xamee ne que dem naa ba jeex ma war a def euh, continuer samay jàng boobu fekk na ne que commencé woon naa am problème ak état bi ndax grève yi ma doon diriger université lycée ma waroon am bourse bourse boobu fu ne la ñu jaar pour xañ ma ko ba yàlla dogal it bourse bi dellu si ci sama loxo moo tax gëm yàlla dafa am solo dëgg nit mun na la xañ wante boo ko yàlla dogalee day dellu si ba mu dellu see sama benn professeur yan na ko yàlla yërëm ne yow gis naa ne que lii ngay def réew mi dinañ dem ba dina métti comme que day métti diplôme nit la dégg nga te yow sa bopp bi li ci nekk xam naa ne xale nga euh, maîtrise rek nga am demal nga jéem a wuti liggéey après nag li ci des mun nga def ay cours par correspondance yu kenn xamul lu ñu bind ci kayit la rek wante li am ci bopp moo sol moo am solo moo ëpp solo waaw ci laa def concours bi de astafurla ci laa dem seeti sama maam ne ko maam dama bëgg a nekk avocat sëriñ bu mag la woon mu ne ma ah avocat ah avocat de liñ ciy wax moom rafetul wante avocat ci ar alxuraan sax am na ci wante est-ce que munoo def leneen ma ne ko loolu laa bëgg ndax mun a taxawal néew yu doole yi ak ñi nga xam ne que ñu ngi leen di xañ seen àq ak seen yelleef mu ne ma benn question laa lay posé euh, nga boo demal nga xalaat yi boo xëyee nga dellu siwaat ma dem xëyaat ñëw mu ne ma xalaat nga doo wuti leneen ma ne ko déedéet avocat laa bëgg a nekk mu ne ma benn question laa lay posé est-ce que bu fekkee ne gis nga dëgg boo xam ne kenn ñemewu koo wax. ndax da nga am te kenn waru koo wax ndax da nga am sañ-sañu wax ko ma ne ko dina am sañ-sañu wax ko mu ne ko ak ni mu ki ki ki nga xam ne moo nekk ci fen ak martabaam nu mun ci toll da nga ko ñeme donte buur la ma ne ko di maam dinaa ko ñeme mu ne ko kon boog ñaanal naa la yal na la yàlla yal na yàlla def yiw ci li ngay dem ñaan boobu nag moom moo tax ma nekk mu dem dungu te wax dëgg yàlla li may def daal moom moo di sant suñu borom bi rëccuwuma ko waaw loolu am na solo dañoo bëggoon tamit nga résumé mi tuuti si kaawu Khalifa Sall boobu instant yi yow ñu nekk avocat wam parce que ñu bari comprendre ñu la moo tax ñu tëj ko. bon Khalifa Sall daal dafa di xëy na koo xam ne que yàlla daf ko nattu te boole ci dundam nekk dafa waroon def kaso. te kooku il faut que yàlla am fu mu ko jaarale moom moo di que bu ko jaarale ci politique rek boobu fekk na suñu borom bi pare na. nekk khalifa dina def kaso wante nak bu fekke nak euh, lolou war na ko defi toujours da fam fu muy jaar euh, dañu yor euh, tey ji ñu ñu yilif dañu gis nako doole la ñuy demee te demee wuñ ci ndànk te yitt teelu wuñ ci mbirum politique xamnañ nañ ne moom moo lal bu mu féewaloo ak ñi nga xam ñom ñoo réew mi ak ñi nga ñom bokkal parti politique bobo lañu ñu ka khalifa bu teggiwul tank dinañ ko fexeel te dinañ ko jàpp léegi nag ci lañu jël ay mbir teg ko ci ndoddam bi li ma koy tënk rek moom moo di que bi dañ ne ko woon xalifa euh, dañ koo dénk lañ ko dénk maanaam mu jël ko euh, def ci jumtuwaay boo xam ne ko du loolu taxoon ñu dénk ko ko mm-hmm. wala it daf ko jël bu ko deful it daf ko jël maanaam euh, féetale ko boppam ñaareel bi dafa njublan te njublan boobu maanaam euh, dafa nekk ay ceeb ak ay dugub la jënd te loolu gisuñu ko kon boog loolu ci wàllu njublan la jëm wante attekat bi euh, toppul ña ko jàppulu tëj ko ci kaso bi te li intéressé nit ñi te mu am solo li wane ka ne fen moo lal loolu yëpp moom moo di que bi dafa nekk la nga xam ne dañu nekk dafa alal ci Euh, maanaam féetewoo ko jalgati ko ba pare it euh, maanaam mu doon loo xam ne que moom rek la jëriñ wala njabootam wala ay ñoñam attekat bi dafa dàq loolu dafa nekk lii ñuy toppee xalifa alal jooju xalifa maanaam profité wu ci moom moo tax foofu daf ko setal wecc wante konk il fallait que euh, ñu daan ko mu ne nag wante konk ceeb ak dugub bi mu wax amul kon foofu dañuy nekk kon alal bi jox nañ ko ko te bañ ko koy jox dafa naxaate donc ay nax moom moo tax ñu jox ko alal bi wante kat alal jooju de ah amuñu benn firnde ne que alal ji moom moo ko jël moom daf ko mujj lekk wala daf ko féetale boppam kon xam nga loolu wanee na ne que atte moo sew rek. waaw yoon moom dafa sew. waaw yoon dafa sew. dégg nga léegi nag loolu yëpp euh, pour que xalifa bañ a mën a joŋante. pour mën a xëccoo réew mi parce que njort nañ ne que am nay nit am nay gannaaw am na xam-xam am na xarañ te it xëy na biddeewam war na mën a tax mu yor réew mi kon léegi bu fekkee nag léegi maanaam euh, daan nañ ko nekk dafa njublan euh, dafa def ay pexe ba ñu jox ko alal joo xam ne mu féetewoo ko mu bañ koo féetewu li tax ñu jox ko rek loolu lañuy ñuy jàpp loolu maanaam ci sunu charte war na mën a tere mu nekk président wante yàlla fi mu ne fa mu koy jaarale toll na foo xam ne que tey jii bu fekkee ne ko du doole ne maa tey même bu dee kaso la kaso lay doon wante mun na jongante. mun na jongante waaw loolu laa bëggoon leer. waa ñun ñu gis ni tamit euh, vote tey léegi mu euh, léegi mu egsi presque deux mois après euh, est-ce que Karaw ñu gis leen tamit moom taxaw na yoon lan la wax est-ce que waxoon nañ dañ koy libéré wala ba tey waxooguñu dara ci moom. keroog ba mu taxawee daal man li tey sama xel moom moo di que la nga charte yi nga xam ne foofu lañ ko waroon atte charte yi ñu ko waroon atte charte yi man gis naa ci lu sew loo xam ne que dëng na te dëng boobu ña xam ne ñoom ñoo toogoon pour atte seen xam-xam yeesu na loolu xam nañu bu baax li ñuy def ma jàpp ne que tey jii dañu bëgg jeexal atte bi parce que tant que acte bi jeexul balaa conseil constitutionnel di joxe liste bi nga xam ne ñoom ñoo war a jongante ji mhm. dafa war a nekk candidat te biir biir bi ci des gàtt na kon boog la nga xam ne que ñoom dañ ko waroon def moom moo di euh, tëral wax ji fii ak weer parce que dañu ko waroon jébbal ci beneen kuréel ba kuréel boobu pare ba mu dellu si kooku day doon weer te loolu day fekk déjà ñu war a dugg ci campagne électorale bañ loolu nag moom moo tax am na daal benn njuuj njaaj boo xam ne ci xam-xam def nañu ko. wante ba tey njuuj njaaj boobu ba fi ñu toll du tere xalifa dafa war a doon candidat même bu dee kaso lay nekk. dafa war a doon candidat gis nañu Bamba Fall dañ ko invité woon mu wax ni que Khalifa Sall mën nañ ko jëlee prison bi yóbbu ko palais mais loolu nan la demee noonu. Euh, loolu li muy wax rek moom moo di que bu fekkee ne que tey jii euh, yàlla dogal na campagne électorale bi bu ñu koy def fekk xalifa mu ngi kaso résultat yi génn fekk mu ngi kaso bu résultat yi génnee mu nekk président de la république loolu bu fekkee nag que nekk na li wóor moom moo di que kon moom moo jiite réew mi su jiitee réew mi li wóor moom moo di que buntu kaso yi dañ koy tijji te buñ ko tijjee direct pale li jëm loolu ren la Bamba bëgg misaal mhm. loolu la bëgg misaal te Karim Wade moom xam nañ ne moom depuis ba nga xamee ne que euh, papaam ñàkk na nguur gi euh, sonal nañ ko lor nañ ko euh, maanaam dafa ñaaw sax dafa ñaaw gis ne que àddina bi yëpp déjà ci Sénégal dañ ne woon que Sénégal yi ñoo ko laaj Sénégal yi wan leen ne mu suñu laaj loolu Sénégal yi li ñu bëgg moom moo di que ñu yoon ñu doxal ko bu ñuy saytu alalu réew mi it ñu saytu ko ci anam yi nga xam ne yu leer la bu ñu gisee ñu daan suñu gisul ñu bàyyi tey ji àddina yëpp xam nañ ne gisuñu dara xam nañ ne lii lépp yëfu naa fekk la dégg nga bitim réew gis nañ ne seen àtte dañ koo teg seen doon peut wante fu ñu dem ñu ne leen us jóge leen fi lii ngeen yor nii xamuñu lii lan la kon boog wax ji bari na te it maanaam euh, nguur gi lim ciy lim ciy lim lim ciy wax lu dul dëgg dafa bari du benn fiftin boo xam ne gis nañ ko du benn fiftin boo xam ne it maanaam réew mi moo ko moom moom moo tax fépp fu ñu dem lu néew lu ñuy gis ci moom Karim yor ko buñ ko bëggee jël réew ba mu nekk dañuy naan teg leen ko fi parce que seen atte bi non seulement jaarul yoon wante it amuñu benn firnde ne que lii ñu gis lu lew la dafa lew Karim Wade léegi nag moom yàlla dogal que lañ koy fitnaal yépp bëgg réewam ak euh, njàmbaaram ak fitam may ko ne day jongante fexe nañu ba génnee ko ci réew mi kenn mosul gis koo xam ne dañ lay tere nga dugg sa biir réew te tey jii ñëpp am nañ firnde ne que dañoo taxaw ne que Karim du dellu si ci biir réewam loolu lu leer la léegi nag li wóoru moom moo di que xam bu amee pexe dina ñëw su fekkee ne agsi na it dina jongante def nañu lu ne pour bëgg pour que ñi nga xam ne que ñoom ñooy daan doon seeni nit ñu wax ci atte ne que Karim du nekk candidat wante atte boobu fokk mu leer ci Sénégal yi mhm. créé bii ñuy wax dañ ko ko laajee dafa ne ko benn ponk ci ci wàllu xam-xam ak ci charte réew mi mayuma man ñun créé yi ñun ñii di atte ma joxuñu ñu doole wala sañ-sañ boo xam ne war nañoo mën a tere Karim Wade sàkku réew mi bu ko neexee kon boog lii ngeen laaj yéen nguur gi dàq nañ ko loolu tekki ne kon ñoo ñu déggal nañ ne que Karim war na mën a nekk candidat kon bu ñu jógee léegi jël atte boobu ne ci atte boobu la ñu teg ne que kandi Karim mënul nekk kii électeur duñ ko jox carte électeur loolu day won nekk jaay doole la wante teguñu ko ci charte léegi il faut que sénégalais yi comprendre ne que tey ji lu wóor moom moo di que bu fekkee ne dañoo jëm ci digg géew bi boo jëlee sa ndënd teg da nga war a ñeme ku mu ku ku ku ku ku ku am fitam fël ko karim nee ne teg leen seen dënd dinaa ko fël wante ka teg dënd bi dafa ne ñëpp mun nañ koo fël mu karim ak xalifa sall kon bokk ji karim euh, doole moo mën tax du nekk candidat wante bu dee ci kaw yoon rek la candidat la te it arte bi ba ñu demee saytu ko ci ñi nga xam ko kuréel yi gën mag ci xam-xam ci wàllu bi dañu nekk Karim lañ ko jàppee doole la wante du yoon benn ba pare ne Karim atte bañ ko atte atte ba jaarul yoon ne Sénégal jox nañ la juróom benn weer juróom benn weer yi wax ñu naka ngay war a def pour que atte bii nga xam ne que jaarul yoon mu doon atte boo xam ne que maanaam euh, euh, dafa dëng naka nga koy jubbante pour que Karim mun a am procès boo atte boo xam ne que ci kaw yoon lañ koy teg wante Sénégal ba tey tontuwul kon boog xam nga loolu bu ñu nekk atte bi warul ci addina bi nanguwuñ ko sénégalais yi nanguwuñ ko kooku dafa wane ne que bu ñu nekk ci atte boobu la ñu sukkandiku pour que du nekk candidat loolu day wane kenn doole la wante doole bi dafa am fu mu féete tey wante ëllëg day toxu kon nañu tey te def ndànk non élection demewul noonu parce que tey ji euh, il faut mu am genn wàll ñi nga xam ne ñoom ñoo voté ba pare teg ci benn nit kon bu dee junni nit junni nan la tudd juróomi électeur lañu donte que juróomi élect juróomi candidat lañu yoo xam ne Khalifa bokku ci euh, Karim bokku ci dégg nga damay joxe misaal rek parce que dañoo war a bokk kooku foog mu leer dañoo war a bokk xalifa moom kenn waru koo mun a tere bokk Karim it kenn waru koo mun a tere bokk lu dul doole wante bu ñu jàppee ci li nga bëgg rek mu leer moom moo di que juróom ñoo xam ne que amuñu doole bi nga xam ne que ci ay nit yi leen pour que ñu war a mën a jongante ba gañe te ñuy ñoom ku ci ne it am na ñu nekk sa gannaaw kooku buñ ko xaymaayee dégg nga te amuñu lu nan la tuddati juróom fukki euh, genn wàll bi ñu am genn wàll gi Macky Sall am genn wàll bi bu boobaa dañuy dem deuxième tour kon bu boobaa nag ñoom ñuy jël ñoom juróom ñooñu dañuy xool ndax dafa am ku ciy dem dooleel ji Macky pour que mu pour que mu jàll wala da ñoom ñee ñoom juróom ñoom ñeenti ñoo ñëpp dañuy doole lii kële ñu ko doolee bu amee ba kenn benn picc moo xam ne dafa jóg rek tàbbi dal ci Macky Macky day jàll bu day bu tàbbee ci kële kële jàll. Euh, ci avocat Karim ci nga bokkoon bu yàgg ba léegi nguur gi mi ngi mooy fi mu mooy ay at ngi nii yéen avocat yi yéen itam yéen a ngi téye fi ngeen téye kalaama bitim réew dem ngeen fu ne nguur gi jàpp fi mu jàpp su demee ba dernier moment mu ne. Karim bu ñëw Sénégal lan moo nar a nekk seen plan B laa xam nga avocat bu fekkee nekk avocat kott la moom moo di moom ci wàllu àtte rek lay yem bu dee politique la kooku it politique lay def bon ñun bu fekkee avocat kott lañu du ñu politique ñun li ñu mën moom moo dika tere nañ ko ñëw dégg nga tere nañ ko nekk euh, candidat wala électeur xam nañu ci yoon. ak ci wàllu xam-xam fan lañ war a mën a jaar bu ñu amee suma dëgg ñu nëbb ko it kooku nee nañ ko ñoo moom seen réew ñooy buur ñooy bummi lu leen neex def fi wante réew mi it dafa bokk ci àddina bi mm. ci àddina bi am na fuñ ko mën a jooytu mm. bu ñu demee foofu ñooñu am nañu sañ-sañ nekk ah bu fekkee nekk tere nañ ko nekk candidat nañu xam nekk bu ñu defee élection élection yi jaarul yoon lan moo gën a ruslu nga ne gañe naa ñu ne na nga gañee maanaam jaarul yoon dafa dëng gàtte boobu war nañ ñu ko mën a terele ñun waa Sénégal kon ñun am nañu ay yoon ak ay bunt yoo xam ne que euh, ñu ngi ciy jaar Sénégal dégluwuñu wante it ñu ngi koy ñaxtu foo xam ne que mun nañu élection ja def ku munti jàll muy ki fi nekk tey mu di le président ma Macky Sall mu dem keneen parce que kenn xamul ëllëg yàlla nee na moom rek moo ko xam mm-hmm. joxul keneen mu mën koo xam kon fi mu ne ku ne day wax rek ak la nga bëgg wante lay sotti suñu borom bi rek supposons que Idrissa gagné ci condition la bu yi que dañuy que Idrissa gagné nga élection yi jaarul yoon. que bu que effectivement nekk ci situation boo xam ne que addina bi da koy day day weddi élection yi boole ci it sénégalais yi ñi nga xam ne que xam nañu yeewu nañu te fekk du par parlu rek moo tax ñu jóg di wax lañuy ñuy wax dinañ xam ne que ah ki jàll di ak ko munti doon jaar na ci anam yoo xam ne que xëy na bu jaaroon yoon du jàll. waaw loolu am na solo noo gisee yoo àtte euh, Sénégal parce que ñu bari nee nañ kumba bu am ndey la kumba bu amul ndey. tey tey looy xam mooy sa xalaat si àtte bi. Euh, kooku justice sénégalaise la rek. Mm. ci li ñuy tënk. moom moo di que tey képp koo xam ne que yaa ngi am na maanaam li nga dese. ci gëm suñu borom bi. xam nga nekk li nga xam ne moom moo gën a yées ci ci dëkk. wala cim réew wala ci peuple Euh, foofu lañ toll tey ndax bu fekkee ne dem nañu ba ñay àtte dootuñu àtte dëgg lépp lu ñuy àtte fen la wala naa feq dañuy parparloo euh, lu leen neex la ñuy def kooku dafa di euh, bu doon jamono yonent yàgg ya la dañuy tiit ne que est-ce que duñu wëlbati suuf si Sénégal toll na tey ji ci nan la tuddati position boo xam ne bu fekkoon nekk yàlla signé wuloon contrat ak ñoom maam Ibrahima ak ñoom maam Nuhu dégg nga nekk dootul euh, baawaan génne baawaan boo xam ne dafay mën di àddina bi wala day wëlbati suuf si kon xëy na tey ji war nañ fa mën a yegg parce que atte mbiru yàlla la kon atte kenn waru ko fooye mais tey ji Sénégal foog naa nekk loolu xamuñu ko nekk cëru suñu borom bi la mhm. tey jii man bu ma bëggoon nekk juge du ma nekk juge yow boo ko bëggoon nekk doo ko nekk juge yàlla moo koy tànn kon bu fekkee ne nekk nga juge ba pare ragaluloo yàlla def lu la neex yàlla nga yàpp te yàlla nga joteel kon boog bés boo xamee ne que day wàccee mbugal wala balaa du tàggu de du tàggu parce que nag dafa am loo xam ne que dafa jéggi dayo te jii ko wax sa digganteeg sa borom par farlu woo xam nga ne ko yoon amatul ci dëkk bi te ni ñuy teg doole xalifa ak nii ñuy tegee doole euh, Karim tey ji yow mi journaliste yi mën nañ ko teg mm-hmm. parce que tàmm nañ ko bokk na léegi seen deret